Ibrahima ah. Ama Diémé ñu ngi lay nuyu. yow yaa ngi bokk ci collectif des cadres casamançais ak groupe de réflexion pour la paix en Casamance am nañu mbégte lool dalal ci matinalu tay bi alors ay fan moo des ñu yegg ci tabaski gi euh, nga seetlu ne euh, frontière diggante Sénégal ak euh, Mali ki noonu Mauritanie ubbi nañu ko ngir xar yi jàll waaye sunu digg Gambie ba tey mi ngi tëju loolu nag indil jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo war a jugee Sénégal dem Casamance nga jàpp ne loolu. jaaduwul. waaw en fait euh, dama gis ne rek loolu dafa dafa maa xaw a jaaxal. ndax euh, man dama yàgg di jàpp ne. Euh, Sénégal ak Gambie ñaari réew la woon teg en tout cas sama gis-gis benn la. si bien askan bu nekk Sénégal ak bu nekk Gambie benn la ñu. parce que boo seetee nit ñi nekk Gambie ak Sénégal ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp seen cosaan seen jëfin seen doxalin ñëpp benn la Euh, li leen li leen tàggale mooy euh, bi colonisation bi ñëwee gambien yi anglais yi nekk Gambie ñu lakkal loo leen Gambie euh, anglais français yi nekk Sénégal ñu lakkal loo leen français donc ñii lakk anglais ñii lakk français ñu ne ñaari réew yu utee lañu waaye ñun ñëpp benn lañu parce que du point de vue socio-culturel Touba mooy seen seen seen référence pour la plupart Tivaouane nekk suñu référence pour la plupart d'entre nous famille omarienne nekk suñu référence Euh, famille Medina Baye ak euh, ak Medina Niassène nekk suñu référence euh, ak ak ak ñeneen ak ñeneen donc ci ci ci wàllu woowu kenn mënul tàqale sénégalais ak gambien boo ñëwee itam ci pari ci di diine catholique itam c'est la même chose donc li ñu wutee mooy colonisation à partir de ce moment bi ñu demee ba moom suñu bopp man yaakaar ne rek frontière diggante Sénégal ak Gambie waruñu ko gisee ni frontière diggante Sénégal ak yeneen réew yi ko wër parce que Gambia ngi ci biir Sénégal euh, rax ci dolli euh, Sénégal dem na ba xam ne euh, en enclavement Casamance nekkoon na problème bu métti métti pour Sénégal métti pour Gambie parce que pression bi ñu doon subir ci baagu Gambie yi mais pression boo xam ne ñaari réew yi ñoo ko doon yëg ñu fexe suñu jiit yi ñu fexe waxtaan dox <clears throat> diplomatie bi dox ba finalement ñu tabax pont Sénégal bi keroog bu ñu koy inauguré defe naa ne ñëpp tàcc nañu ne alhamdulilah rabil alamin kenn dootul sonneti jógee Ziguinchor ñëw Dakar wala jógee Sédhiou ñëw Dakar wala jógee Dakar dem Sédhiou wala Kolda wala itam kenn dootul sonn jóge Gambia ñëw Sénégal comme kenn sonn jógee Sénégal dem Gambia. Hmm. pont bi ñëpp gis nañ ko mu commencé di di wane euh, man mënam mais malheureusement Covid bi ñëw adduna bi yëpp ne nañ tëj frontières yi ok ñu def ko. dox dox dox dox dox jiit yi gis ne loolu mënut a wéy nañu ubbi mais pour que ñu ubbi fow nit ñi mën a dem béykat yi mën a dem béy sàmmkat yi mën a dem sàmm euh, nappkat yi mën a dem nappi et cetera et cetera boole nag ci euh, diine yi l'islam ñu jubal ci ñu jublu ci tabaski ñu xam ne am na ñu nekk Saint-Louis bëgg a jullee ji Ziguinchor am ñu nekk Ziguinchor bëgg a jullee ji Saint-Louis am na ñu nekk Thiès bëgg a jullee ji Banjul am na ñu nekk Banjul bëgg a jullee ji Diourbel et cetera mais bu ñu tëjee frontière boobu diggante Gambie Sénégal boo xam ne daanaka benn peuple la te ñu ubbi aéroport yi pour que avion bi jógee fii dem ba Mauritanie jógee fii ba dem ba euh, Maroc jógee fii ba dem ba Espagne mais attends ma am na lenn loo xamante ne euh, teguñu ko fu ñu ko war a teg. Hmm. am na donc lu ñàkk ci suñu doxalin. ma ne donc loolu dañ ko waroon a saafara cest balaa ñuy ubbi beneen frontière diggante Sénégal ak beneen réew dañu wax ne jëkk ubbi frontière diggante Sénégal ak donc loolu bu ko defee euh, ñu gis njëriñu pont bi ñu gis euh, euh, euh, koom-koom bi nu muy doxee su ko defee dimbale askan bi hmm. alors nga gis ne kon ñàkk ko def am na lu muy fësal ci ñàkk vision ci wàllu économie sociale culturelle ak itam wàllu koom-koom comme ni ma ko waxee rek ci wàllu culturel moom wane wane naa ko sànq parce que boo jëlee joolaa yi séeréer si soose yi Euh, alpulaar yi sarako yi ñoom ñëpp ñoo nekk Sénégal ñoo nekk Gambie jaago yi euh, mankaañ yi et cetera ak euh, baynunki ñoo nekk Gambie ñoo nekk Sénégal doo gis benn doomu Gambie boo xam ne amul amul benn xaaju famille am bu nekk bu nekkul Sénégal te doo gis benn doomu Sénégal boo xam ne amul benn xaaju famille am bu nekk Gambie donc loolu moom benn la ñu socialement culturellement donc bañ a ubbi frontière bi déjà gaañ askan wi la. Hmm. deuxièmement maintenant du point de vue économique également dama ne. boo gisee pression bu ñu def ak moyen yu ñu def pour que pont bi taxaw mais vraiment gisuma lu tax tey parce que ñu ngi ubbi frontières yi ba ñu ubbi aéroports yi partout pour pas ñu tëj pont bi nit ñi bañ faa jaar su ko defee teg nit ñi coono boo xam ne jaratu ko daanaka parce que nit ñi boo tëjee frontière boo tëjee frontière yi dañuy jël oto yi jaar di wër par Tambacounda dem. Mm-hmm. boo tëjul frontière yi dañuy jaar par pont bi te moo gën a gaaw moo gën a noppale moo gën a yomb mais diggante ñaar ñoo xam ne daanaka ñoo bokk ndey ak bàyyi Gambie ak Sénégal. mu hmm. ubbi woon pont rek moo tax moo moo gën moo gën a am am euh, facilité. Hmm. ensuite du point de vue économique sax ma ne. mais nañu gis nañu jël exemple yeneen réew yi ñu xam ne ñoo ñu raw ñoo ñu jiitu ci développement. Union européenne bu ñuy bu ñuy woy tey di ko di kon nawlu mais Union européenne xëyul ni rek euh, taxaw ñetti ñetti dëkk yu ndaw yu gën a tuuti sax ci Europe maanaam Belgique Néerlande Luxembourg. ci ëllëg deuxième guerre mondiale ñoo taxaw ne mënuñu jógaat mënuñu soqali suñu réew tant que nekkuñu benn jàppante ñu ñu créé benn marché commun ñu tuddee ko Benelux Belgique Néerlande Luxembourg Benelux boobu moo créé CECA communauté économique de l'Europe et du charbon et de l'acier hmm. mooy l'Europe des six Europe des six ñëw joxe Europe des neuf Europe des neuf léegi ñu ngi ci vingt sept pays daanaka européen ñu nekk ci benn union te ñooñu ñoo dirante ay bag ak États-Unis moo ne ñu ne moom mooy première puissance mondiale ak Chine ak euh, Japon ak ñoom seen mais ñun il faut ñu commencer donc par benn benn benn benn euh, union bi wane ne bu dëgëree rek jeex na Afrique ci lay jaar dem hmm. te mënuñu ko tabax tant que jaaruñu ci ñaar ñoo xam ne ñoo bokkandee ak bàyyi maanaam Sénégal ak Gambie hmm. bu ñu ko defoon tey ba marché comme Sénégal Gambie taxaw le plus rapidement possible donc ñu bañ a yëgati frontière entre Gambie ak Sénégal mais je crois que loolu dina ubbil dina xalal yoonu Afrique pour que Afrique mën a dem ci kanam. te mun na génne aussi Casamance ci désenclavement bi nga xam ne moom la nekk loolu am wàll wu rëy ci euh, fitna gi nga xam ne moo fa yeewu. mais bien sûr ma yaakaar ne ñun ñëpp fàtte euh, euh, réeréew ñu mbir ne que li gën a créer difficulté wu Casamance mooy dem bi diggante Casamance ak le reste Sénégal ndax enclavement bi woon o taxoon na fi imaginer nañu toutes sortes de schémas pour que voie de contournement euh, chemin de fer de contournement pont et cetera et cetera yàlla def pont bi gën a yomb taxaw te mu nekk pont bu rafet te ñi ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko inauguré mooy suñu ñaari jiitu réew yi actuel mooy président Macky Sall ak président Adama Barrow mm. mais keroog bu ñu ko inauguré nee nañu boobu dina facilité seen dikk bi diggante euh, ñaari réew yi te dina facilité euh, dina facilité Euh, comme intégration bi à euh, diggante ñaari dëkk yi ak diggante dëkk yi ak yeneen dëkk donc je crois que ñàkk koo def parce que tout simplement il faut d'abord ñu xaarandi sow ma lan mais loolu euh, yokk yokk coono yi askan wi la te ensuite peut-être gisuñu ne que dina dina gënoon a am beaucoup plus de chance pour que li woon Casamance ñu fàtte ko Hmm. alors bu weesoo pont bi am na yeneen liggéey yi ñu sumboon ngir euh, désenclaver Casamance yooyu liggéey ñu ngi ci doon ñaaw lu yéexaay fu mu toll. bon je pense que yeneen liggéey yi moom euh, dinañu continuer parce que euh, boo gisee projet yi fa président de la République dugaloon ci wàllu PUMA ak PUDC ak même PPDC je crois que yooyu yu ngi dem hmm. mais mais je pense que du am effet bu mu a am. tant que des désenclavement bi désenclavement bi diggante nord ak sud bi nekkul effectif hors désenclavement bi li ko li ko li ko gënoon a mooy pont bi soo soo laajee ñuy utiliser euh, yoon bi dinañ la wax ne du point de vue des statistiques depuis keroog bu ñu inauguré pont bi ba keroog bu ñu koy tëj mais euh, courbe bi mu ngi doon yëg rek parce que tout le temps amul guddi amul bëccëg ñu leen dem demoon nañ sax ma ngi fàttaliku demoon nañ sax ba président woon Euh, dina jox ndigal gouvernement pour ñu waxtaan ak Gambie pour que nit ñi mën a dem même ci guddi. Hmm. je sais pas si yaa ngi koy fàttaliku. waaw jékki-jékki ñu tëj ko donc tëj bi nag mais forcément dina am lu mu wàññi lu bëri. Hmm. lu bëri bëri bëri ci d' abord ambition bu président am ci euh, développement euh, Casamance surtout développement national équilibré. Hmm. alors ñu oui. waaw allez-y. fale fale lu bëri dina fa am ay yéexantu ak cause du fait que bon mënatuñu euh, continuer liggéey yi mais bu ñu ubbiyoontee frontière bi te yaakaar naa ne dinañ ko def ci diir bu gàtt. Mhm. ku nekk dina gis ne vraiment yéexoon nañ ko def. d'accord alors ñu ñëw ci fitna gi nga xam ne moo yeewoon ca Casamance boobaak léegi yàgg na ay waxtaan ñu sumboon ko fi ngeen denk sax di dox tànk jàmm ci diggante bi ndax mun nañu xam waxtaan yooyu tey fu mu toll. li ma bëggoon a wax rek sénégalais yi euh, ak auditeurs yi leen di déglu euh, yéen waa Rewmi FM c'est que euh, yàgg naa may wax ne la woon mënatu la am maanaam fitne bu fa woon mu ngi suñu ginnaaw loolu mën naa ko wax parce que xam naa ne askan wi loolu la bëgg ñi jëloon gànnaay yi mooy wax waa MFDC waa ñi ngeen tuddee leen waa FIP yi ñooñu combattant yi ñooñu également nee nañu ñoom vraiment bàyyi nañu loolu Euh, léegi mi ñuy ñaax nguur gi pour que ñu mën a toog waxtaan donc yaakaar naa ne nguur gi itam comme suñu jiit mooy président la république moo ne euh, tàllal na loxo euh, waa MFDC pour que waxtaan mën a am bu ñu nekkee ci boobu disposition gisuma li war a tax pour ñu dellu siwaat ci ginnaaw ba xeex mën a mën a mën a mën a yënguwaat foofu ci mm-hmm. région ba mm-hmm. maintenant kenn kenn du réeréew mbiir ne que dina mën a am de temps en temps ay euh, difficultés yi war a mën a tax peut-être quelques problèmes juddoo euh, foofu comme d'ailleurs dans tous les pays du monde hmm. euh, daanaka de temps en temps même ci yeneen région Sénégal yoo xam ne MFDC newu fa mais rébellion newu fa mais de temps en temps da dégg ay sox am na fi hmm. am na fële nañu lii dévaliser nañu lalee même ci biir Dakar bi dañ koy dégg mais mais pour xeex ngir indépendance defe naa ne boobu moom mu ngi suñu ginnaaw. Hmm. mais yow am nga yaakaar donc ci li ci des. franchement franchement tey moom euh, yàlla moom la muy dogal kenn xamu ko. Hmm. mais ñi ma ñi may waxtaanal en tant que acteur facilitateur du processus de paix ñooñu nee nañu ñoom léegi comprendre nañ ne waxtaan rek moo mën a euh, yeggali mbir mi te ku bëgg waxtaan xanaa doo yor gannaay di dem waxtaan. Hmm. donc ñoom ñëpp pare nañu pour teg seen wéeru seen gannaaw seen seen i gannaay seen gannaay euh, waxtaan ak plénipotentiaire nguur gi la te boobu itam defe naa ne nguur gi déjà moom xamale na ko parce que yéen ñi après presse yéen a doon rendre compte ne que telle délégation bu gouvernement du Sénégal dem na Rome Sant'Egidio daje fa ak délégation bu MFDC donc euh, léegi yeneen bànqaas yu MFDC yi des ñoo euh, xam ne ñoo nekk nord bi ñoo na ñoo nekk sud Oussouye ak sud ñoo ñooñu itam nee ñu ñoom ñu ngi jéem a lëkkaloo pour jéem a Euh, dugg ci processus bi ndax mun a waxtaan ak nguur gi bu ko yëf yi jeex. Hmm. donc ñooñu nga xam ne ñoo yor gànnaay bu ñu tolloo foofu ma yaakaar ne gisuma li war a tax. ba euh, xeex dellu si waat. Hmm. alors ñu jeexal ak euh, mine yi nga xam ni temps yële defaat nañu ay victimes yu bari ci bët sàllumu réew mi lan moo waral ñu am tey jafe-jafe wu yeggali déminage bi nga xam ni tàmbali woon nañ ko. oui pour wàllu mi nii donc euh, effectivement euh, euh, ci weer wala passé déggoon nañu fi ay mine ñu éclaté woon foofu am ñu fa gaañ mais loolu dama dellu siwaat ci benn interview ma defoon lu yàgg dama wax ne bu ñu fàttee ne que ñu ngi ci zone boo xamante ne kenn benn réew defaru fi ay mine defaru fi ay gànnaay donc bu ñu gisee ay gànnaay ak armes légères yuy circulé ci zone bi d' abord war nañu interroger wu fan la gànnaay yooyu jógee ku ko fi dugal lan ci lan la jublu donc loolu war nañu war nañu interpeller ñun ñëpp bépp citoyen mais également interpeller suñu euh, jiitu réew yi ñu xam ne dañu war a bàyyi ci loolu parce que ñuy defar mine yooyu bu ñu koy defar ci benn contexte la ñu nekkoon seen diggante donc bu ñu tolloo tey indi produit yooyu dugal si ko si ñun am nañu lu nar te lu ñu nar mooy continuer di ñu déstabiliser ñoom ñu continuer seen œuvre di fi jël lu leen njëriñ mm. euh, bàyyi ñu fi lu ñu dul njëriñ donc loolu laa commencé laa commencé ci tontu la question boobu léegi lii am moom forcément état créé na benn structure ñu tuddee ko CNAMS CNAMS am comme mission déminage humanitaire parce que beneen déminage militaire bi euh, militaire bi militaire yi ñoo koy def te ñoom buñ ñu koy def ci dans le secret défense mais déminage humanitaire boobu pour que mën a am foog waxtaan am waxtaan bi nag defe naa ne il faut ñu gën a dooleel CNAMS pour que CNAMS continuer mission sensibilisation nit ñi askan wi pour que peuple bi xam ne mine yi ak armes légères yi warut nekk ay ay ay jumtukaay yu ñu war a bàyyi doxantu noonu parce que euh, gisuma lu ko fi jar parce que loolu mooy indi déstabilisation mooy indi violence partout donc tant que yooyu ñu ngi circuler te ñun fabriqué wuñu ko ñu koy fabriqué ñoom dañuy pousse pour que ñu utiliser ko yàq suñu réew yàq suñu askan pour que ñoom ñu continuer di ñu dominer. Hmm. donc bu ñu defee sensibilisation ba pare te war na laaj ay moyens yu bari mais li ci des nit ñi sax ñoo leen di wax ne kon de ñëw leen diwaan sangam parce que foofu am na ay mine. Hmm. ngeen ñëw ñu dindi ko. mais tant que joxuñu ay gannaayu yu suffisant ay moyens financiers am na ay moyens techniques. Hmm. Euh, lu ñu amul mooy moyen financier pour que ñu mun a procéder déminage bi comme ni ñu ko bëggee woon par rapport aux accords internationaux bu Sénégal adhéré. jërëjëf Ibrahima Ama Diémé euh, amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yow yaa ngi bokk ci collectif des cadres casamançais ak euh, groupe de réflexion pour la paix en Casamance ñu ngi lay gërëm bu baax. maa lay gërëm euh, maam Fatou Thiam.